bi nag ci ay wéy la koy de bu dee ci ay maqama ya nag ci ay fatawa la ko doon defee yoon bi nag ci ay wéy la koy defee xakkaa nettali na alxaaris ibnu hammam su ko defee na waxalul leen ko it nag benn samari ci lay nekk mu génne la kon na laylatan di guddi goo xam ne jëwuha jëwu maqrurun lu ñu seddal la mm. te nekkoon guddi goo xam ne jëwu ju sedd sedd la am xarran naaru mm. wajey buha jibaam mm. lu ñu gaw la mooy dafa lëndëm tam kenn du gis kenn mel ni yére bi ñu teg ci ji mm. gaw bouton yi mm. dalaa xiir jëmm ji lépp mm. kii nam lëndëm gi dafa tax mënoo gis dara asiru mooy bouton waaw masaluñu bouton ne asiru mooy bouton dégg wa jawwaa jawwu masrurun lu ñu gaw la wa jaybuhaa poosa masrurun lu ñu gaw la wa najmuhaa ay biddiw maxmuumun lu ñu niisal la waxee mu ay niiram markoom lu ñu rankale la guddi ga dafa lëndëm taras xiin ba ñuul kukk nag waana te man fiiha ci guddi googu afradu maa gën a sedd min aynil hirba ci bëtam kàkkataan sallaaw daal ni ma yëgee sedde moo raw ni bëtam kàkkataan di sedde ba tax heure bu nekk ñi ko jàkkaarleeg jant bi walhansi ak ak bëy mm. mooy gàtt gàtt mm. alba aljarra bu raaji ràmm moom la seetlu di gën a sottal mm. ndax bi am kawar dana am loo kawar gi fegal ak sedd ak bëy aljarra bu raaji ràmm dina ko baax a baax dina ko baax asal dañu anusu di yëkkati mooy di xiir hmm. hansi sama gëlëm hmm. waa xoolu te manaan ko hmm. tuuba texe la ki ñaan na la wali na fi ak ñaan sama bopp xam nga ci dox la nekk seen safara wi te booba sedd bi tar na mu ngi fas gëlëm gi su mu dem bu baax nan ko léegi boo xàggee dana neex ci man dana neex ci yow walam asal dañu ma anusu de xiir hansi sama gërëm mm. waa xoolu te manaan ko mm. tuuba taxe mm. la ki na la wali sa wali wali na sa ñaal sama bopp ilaan tabassara basiir al muuqidu aji taxa safarati ilayya sama jëmm jëm man wa tabayana te mu birlu irqaali sama gaaw ba safara bi seen ma fan hadara mu dal de wàcci yahdoo di daw al jamasa dawinu jamasa doxin lay do wu xam ne àggut daw xël waaye doxin wu yéex wayun sudu mu ngi sadd moom kitaa safara wi day day aji wéy rajaf léegi kitaa safara bi mu séenee rek la jóg dama tàccu comme ko am gar rek mm. kuy tàccu gar rek nag ni mu yaatoo mu ngi woy woy yoo xam ne ci rajas la koy woyee mm. xam ne satr bu nekk woy la mm. mu ngi naan huyita min xaabiti laylin saari hadahu bal hadahu dawu naari dawu naari ila rahibil baay rahbi daari murahibin bi tariqil mumtaari tarhaba jaadil kafi bid dinaari laysa bi muswarrin ani suwaari wala bi mi'tami al-xaari ida saarra turabu al-aqtaari wa dannat al-anwaa'u bil-amtaari wa ala busi zamani daari jamu ramadi murhafu sifaari lam yaxlu fi laylin wala nahaari min na min nahri waarin dara loolu la min nahri waarin waqti daahi waari fu yiita na yoof na la min xaabite laylin caaji dajitu guddi saarin kuraaji rañaan hadaahu ku gindi na ko daw naari bal lébi nekk hadaahu joxe na ko sax laa rew naari lerek safara ila rahibil baa jëm caaji yaatu ñeñ rahbi daar kuraaji ci kër yow laa de nayu mm. yow mi dox guddi de la ndamtu mm. sàllaw xam nga sens mm. xam nga njaati boo xam ne ku man gan la <coughs> ku yaakër la li am sens du yaa am waaye ñun ñoo am sens ku ne yow lañ ngay ku yiita nayoof na la min xaabiti laylin caaji dajitu guddi saarin ku daaji rañaan xataa bu ko gindi na ko daw naari ila rahibil baax leer gi moo la junj hmm. moo la gindi nga xam fi ngay xaw hmm. kon dikk fi sa sens la hmm. bal li fi nekk déedéet sax ah daahu joxe na ko daw naari leer safara wi li leer gi moo ñu la jox kon suñ sens la <coughs> ndax ku ne yow lañ bëggoon ila rahibil baax jëm caaji yaatu ji ñañ te ne ñëw nga ku xam ne ku mën a boot gan la ku mën a ganale gan la rax bi daar ku daa ji ji kër mu raxibin ku daa ji tatagal bi taarixi jaaji fëgg mm. almumtaar kuraaji sàkku xol moom daal gan goo dikk ne reeraguma sàlla mm. moo ko gën a lu ne mm. su ko amee dana ko yaaxale lu ne wala gan goo dikk ne faa sonna moo gën a lu ne su ko amee tëddukaay bu gën a neex dana ko ko wala gan goo dikk fa fa ma moo lu ne su dikkee naan gu neex gu ne dana ko ko jox murahibin kuraaji tatagal bi taarixi jaaji fëgg almumtaari kuraaji sàkku xol tarhaaba jaadil këffi kem tasagalak aji dëgër të ténk bi diinaari ci diinaar mel ni ku nay koo bëggee ku le daal su ko diinaar dikkalee nam koy tëyee ñun noonu la ñuy tëyee gan ñun xam gan teral ko moo ñu gënal lu ne kooku diinaar ko gënal lu ne subaa lama tan ci diinaar attani ko ci ku le yow laysa bi mu wërin duut aji jégg de ani suwaar yi walit way nemmeeku yi bu dikkee ñu naan ko nekkuma fekk hmm. naan faa tukkee hmm. de làqute ci baraba hmm. moom du def loolu de wala bi mextaabil xera dul ku yéexee ganale mais xaarin ke yéexee akoon wala gan nga de ko négligé ba coono do topp ko lu yàgg moom du koy def de su fi indee mar mar wa saa lay deñ de su fi indee xiif xiif ba ci saa lay deñ de su fi indee coono léegi léegi nga am fooy noppaloo wala mi ataamil xaraa dut ku yéexee ganale mm. mi xaarin ka yéexee àggoon mm. idof saharat bu jàppoo mm. mooy bu bañee bu kotomoo turabul aqataayi suufi gox bu suuf gàntoo nangu wuda saxal dara mais ñarabu wadan te nay alan waawa bidi bi ndox yi bilam taari jii taw bu ko defee asamaan tawul bu ne bu bee fa dikk foofu moom ala buusi samaani ànd ak weñ suug jamono xataar yi bu daa ci lor wala bu daa ci métti ci nga ko dégg nga maa daare mooy mooy ku bëgg ku bëgg ku bëgg ku bëgg kii mooy daw ka mooy daw ka du bëgg bëgg bëgg bëgg rey maanaam bëgg song bëgg rëbb ku baaxoo rëbb dégg nga mu ne bu fekkee ne suuf si bee far asamaan si tawul ñépp mm. toll ci wencu wam mm. hala buusi samaane ànd ak wencu jamono mm. adaari bu daa mu ne bu ñu àggee foofa jëmmu ramadi ko bëri doom mooy ganalekat dëgg la bëri doom li koy waral mooy bëri looy taal selloo ko bëri looy lakk matt ci ron tin la koy waral mooy bëri looy togg rek la koy waral mooy bëri ñooy leyal rek la koy waral mooy bëri gan rek mm. mooy temps boobu da nga koy fekk muy ganale gan mm. muraafu sifaari ku ñu daal si paakaam mm. paaka yi moo reende ak yi ñoo feese heure bu ñu leen a daal xamul noppalu lam yaxlu féexut fii lay leen ci guddi wala naxarin du càggeen bëccëg min naxari waarin ci loj gëlem guraaji ponkale waqati waqati daa hiwaarin ak kocc daju bee wuraaji tànk mm-hmm. wuraaji tàkk xamul mm-hmm. benn heure boo xam ne nekkuñ de daane dara mm-hmm. nekkuñ de togg dara heure bu ñu ngi daane dara xam lu ñu togg sotteeku àllam yaxlu féexul fii lay ci guddi wala naxaarin du caageen bëccëg min naxri waarin ci loj gëlëm guraaji fonkale waqati daa hiwaarin ak kocc daju bee wuraaji tàkk lii mm. la wéy de balaa ñoo daje mm. su ma talaqaani topp mu tàccu ma nag mm. bi mu ci cël may hayyin lu daa ji bëri kar bi mu hayyaa hayyin ci ci càkkuteefu ci cël may aji bëri kar wasaafaha mu joxee ma loxo biraahati aryahiyin ci tenqal ko tab mu jox ma loxo ma yëg ne ku ma jox loxo waxtaada nii mu daal dem xomat mm-hmm. ilaa baytin jëm cim néeg mu yóbbu ma ci ruq ko dalal ma mm-hmm. bu xam ne saaruhoo ay maddam mooy mm-hmm. gëlëm yu mag yañ fa taxawal war leen a rendi salaa taxooru ñu ngi bëmb waan saaruhoo ay cinam ci ni ñoo to togg sotteeku tafooru ñu ngi fuur ba wala idoo ay walidaam te mooy jewer yi liggéey da defar ñam di séddale te mooru ñu ngee baagante wa mm. mu wax idoo ay ay ndaw ay ay ndabam mm. te dooru mm. ma ci boo xam ne xam na luñ de ko séddale xam na lu ñoo def xam na lu sotti ñi ko defar xam na lu na lu ñoo rendi de ko xam na luñ taxawal bëgg leen a dara manqué jallat mawaiduhu mm-hmm. te jamono bi ngay ngay gën a legante ataaya bokku ja mm-hmm. ak nu ndaw ya mën ngan nga matagut mm-hmm. aday ah, ko doonal ataaya yawma muhrimuhu lam yujdi shay'an wa in jallat mawaiduhu wa man saqa dayfahu al ataaya akramahu wala yuabu wa in qallat fawaiduhu wante su fekkee naan na ko ataaya leneen lu manqué di dem ngan gi mat jarat bi saadatul ayami wan sahabat wa daaru la budda an tura hawaidu hmm. mu ne addina ko indi hmm. te il faut jamono ko indi hmm. te il faut ñu ànd ak aaday jamono loolu la wax de xëy na bu doon bind katam léegi dana ko ci boole aar loolu la wax de dégg nga addayfu dunan atayal yawma mukrimuhu lam yujdi shay'an wa in jallat mawaiduhu wa man saqa dayfahu ataya akramahu wala yuaabu wa in qallat fawaiduhu jarat bi saadatul ayaami wan sahabat wa dahru la budda an turaa hawaiduhu waxtaada ni muhammad ma ila baytin jëm cim néeg boo xam ne xesaaruhu ay maddam mooy ponkali gëlémam yi te xóoru ñu ngee bëmb ñu ngi aw gëlém yu bëri de pare pour rey leen ñu wa ansaaru ay cinam te fóoru ñu ngi fóor ñu cin yu bëri ñu ngi bax de fóor ba wala yi doo ay walida mooy xale yi fee lëggee de séddale ñam te mooru ñu ngi bagante ba mu doo ay ndabam te dooru ñu ngi wër ba bi ak saari te nekk na ca wàlli néeba adiyaafun ay gan yu bëri yoo xam ne xat jarabahum bijji na leen jaali aji bijji sama waxul li boo te jàllal bees leen bi xaala bi ci suma móoluwaay ma fekk fa gan ñu bëri ma xam ne fii wàccukaay la ñoo xam ne li ma fi andi moo leen fi andi ndax baax si fi rek ñu dalal leen woom te ñoom kay te noonu ñu ngee kotti faakihata sita foyteefu sita ñu ngi meññen mi de lekk ci temps boo xam ne meññet jafe na ndax war lu sitaa daf daan jëfe mbir mm-hmm. wayam ra woon ne ñu ngi bég ñu ngi siigareeku mm-hmm. marahasabil fata yi mm-hmm. mbégam ndaw yi ñu ngi kontaan comme ku ne ci ndaw ndégus bi ni mu neexee fa axastu ma jàpp ma xadahum seen jàppuwaay filistila filistila yi di jaaru ma it ma toog commencé jaaru wajattu ma daal di bég bihim ci ñoom wajda samin kem bi aji mandi bitti mm. lay ci sàngara mm. ma kontaan ci dajeeg ñoom comme mm. naan kat bu amee sàngara ni muy kontaanee ci am nga sàngara wala ma ansara ba nga xamee ne mu ñeeku na nag wala rañaan na ko alxasaru tëju gi xam nga bu wax feer ci ay nit ñoo xam ne xamoo loo leen fekk doo xam noo leen a duggee il faut nga déglu leen ba xam fuñ ne ba xam ci loo leen mm. nga doog mën a wax ak ñoom mm. waaye ne ba xar fi ni nag nekk naa fi loolu su ma bëgg wax ak ñoom xam naa fu may jaar mm. wala ma ansara ba barañaane alxasaru takku wansara te bu ñëwee ko alxasaru sedd bi ba ma jaaroon nag ba jaar ni xam ne fi ne moom coono bi moom jeex na fi mu ne itam ñii naa li ma leen fekk xam naa daal wa ñii naa bi loolu amee uti naa di këlëm bi dama fàtte mu ne biñ biñ nee ba noppalu sedd bi daal uti naa di këlëm nañu bi ma waa ida ci ndab kal yu mel ni ay penc weer daw ci wër dañuy indi ay ndab yoo xam ne dañoo wër comme ay penc weer bu dee jant bi daaratu samsi la wax ak xaalatul xamar mu ngi ci fiqhul luxa wa rawdaati mel ni ay tooli nawran ci tóortóor ñu nekk ndab yoo xam ne ay xeeti rëdd yu bëri moo ci nekk mm. ba tax boo ci tiim ay couleur yu bëri ngay gis mm. waqa suhin na tamit moom feesaleef na leen mm. suhin na feesaleef na leen bi at xematil wala imi ci ay ñami waliima ñu nekk ndab yoo xam dañ leen def ba mu fees dell te ñam yu rafet comme ñami xew moom lañ ci def waliima xam nga mooy céetale waxoo mii na te xaareef na leen minan ha ibi ci aji <coughs> ayibal mm. wallahi maa nga ci yette mm. ñu nekk ndab yoo xam ne boo leen tiimee mm. mënoo sikkal ca jëmmi ndab ya dara mënoo sikkal ca deferin wa dara mënoo sikkal ca ñam wa dara lépp rek moo baax ñam wi togg gi demee na nam war a demee ndab yi set gi demee na nam war a demee deferin bi itam jeg gi demee na nam war a demee farafat naa ñu daal fëgg ama ah, li nga xam ne xii la waxeef na ko fil fitnati ci regg mm. mu ne xam naa ñun liñ jàng sax mooy xam na nu xiirale fa lekk moom baaxut mm. waaye keroog masala ma dañ koo dëgg tànk mm. al fitnatu tusibul fitnata ak façon wax yi demee noonu yëpp dañ ko teg fale al fitnatu tusibul fitnata regg dafa yóbbu leeral xel al fitnatu tusibul fitnata fitnatu fitnatànk la mooy dañ ko sànni hmm. waraay naa ñu gis alimhaana bëri lekk fii aa ci moom hmm. mais mu bokk ci xel ñee lii ku xel waruñ ko koo jox mu soxla ko hmm. dañuy lekk-lekk lu ya bunayya idam talaatil maidatu naamatil fikra wa xaritatil hikma wa qaadatil ahdaa anil ibaada loolu mu ngi bokk ci wasaaya Luqmaan ya bunayya idam talahatil maheda naamatil fikra wa qarisatil hikma wa qaadatil ahdaa anil ibaada waaw la taakulu kasiran wa tasrabu kasiran wa tarqudu kasiran wa tahdaru kasiran bu lekkee ba diis ah naan ba gën a diis rek ngay def su mm. waa tëdd de nelaw rek ngay def mm. sa temps lépp dem ci lu amul njëriñ la taakulu kasira wa tasrabu kasira wa tarqudu kasira mm. wa taxsaru kasira mu ne dinañu kamaay wax ko ci mbiru lekk waaye keroog loolu lépp dañ ko tan xam ndax ni mu bakkanee daal ak bakkan ni mu ci boobu rek <laughs> ne wala sa dëgg dëgg daal amee li mu bakkanee rek. Mm. ak bakkan bi muy jubóog borom rek. am na lu tëdda. waraay naa ñu gis alimaana bëri lekk fi aa ci moom. Mm. mais fitna tamit mbokk yi xel waaye xam na ñu ko man de. Mm. Souleymane ibn Abdul Malik bin Marwan. kooku noonu nga xam ne moom la xaw na bilan suutu woon. kooku daqal lekk la. <laughs> dem naa lekk ma rek moom. te loolu baax na ñu ko man yaa ngi mu satara waaye yoo xam ne xam naa ko doon tukki am mbokk am moom jaar nuyu ko. Hmm. xaj boo ko defal tiraanga indil ko yàpp ñu ne taaj yàpp yi dem di wuti mburu. Hmm. mu dikka fekk mu lekk yàpp mu daal di tëral mburu mi dem di wuti ak yàpp mu dikka fekk mu lekk mburu mi. mu hmm. ne yoon mu ne ko ana la doon doxe mu ne ko man de dëkk sangam laa jëm nga seet docteur mu ne ko waaw kon boo defee mu ngi jaar na ci lii xataa yi mi ci saa poñat ba lekk nañ lu ci ëpp suñuy soxla ñoom soo ko soo demee ba mel ni ka gën ci gisoon ba ngay tàmbali gisatoo ko rek mm. soo yee booba xam nga jëlu la doy mm. su fekkee yow da nga ko soxla lool mm. nga tàmbali di ci lekk soo lekkee ba yëg ne cap ka gam la joxoon ci njëlbeen joxatul la ko rek soo yee booba léegi soxla pare na li li ñaamoon njëriñ moom pare ne dañu romb boobu dañu romb boobu ataye dag tal naa ba ñu natt bisaayal wuta mi ci saa poñat mm-hmm. waas fay naa te ñu jege mm-hmm. ala xatari tuxa mi ci wóor a dig fër mm-hmm. xam naa àgg nañ foo xam ne lu ci tegoon fiiw la ñuy def waas fay naa te ñu tapp ala xatari tuxa mi ci wóor a dig fër bi loolu xamee temps war naa joxante lañ mosoosal xamari foppu waay ñaay léegi ba pare. Hmm. léegi indi torsion yi. Hmm. ñu doon hmm. naa topp ñu wàcc. maqaaya de samari. toogu waayu gonaar yi. bañ fomp ba pare. dem ci barab yi ñu war a toog. pour mën a waxtaan. waaxada kullu waaxada dal di xarab kullu waahidin képp kenn min naa ci ñun. ci soolu di yëkkatee bilisaanihi ci làmmiñam wayan solo te muy wasaare mm. maa li nga xam ne fii diwaani yi nekk na ci dencukaayam mm. ah, kenn ku na lam garde ci waxtaan mu nettali mm. ñi ay léeb lañ xame ñi ay wéy lañ xame ku nekk la nga xame ten waaw ne wax dëgg yàlla yow jox nga ko ba mu noppalu nga jox ko mu rekk ba mu lekk ba rekk nga defal ko place ne mën na faa toog ah, de waxtaan xam kum waaw waaw waaw daal di jàpp kullu waahidin képp kenn min naa jinun yasulu di yëkkate ko bilisaanihi ci làmmiñam wayal suru te muy wisaare maa li nga xam ne fii siwaanihi nekk na ci defu gaayam dencu gaayam maa daa say xam ne rek góor nag mustahiban guraaji weex bay jaaw foo daaw ñaari wàlli boppam su may ak goo xam ne mu ngi bay jaww moxlaw le xam kuraaj rab bu daaw ñaari mbubbam waxtaan daal ku mun waaye genn góor moo ci bokk goo xam ne kawar gaa ngi weex yére yaa ngi sagare fa yén na woo naka moom rabata goor la mu xajratan ci wàll waaw saana te mu yaatal ñu xijratan ci tomb ne mekk beru barab boppam rek hmm. nañu këj rek hmm. hmm. fay na wa naka rabada goor na mu mooy jékki na mu hajra tan cig wàll waaw saana te mu yaatal ñu hijra tan ci toom fa xaadana dal di ñu merloo te jël nu bu hoo teetam al multabis buraaji lënt moo di boo aji waralam al maatur bare bu ñu ngàntal bi ci mu àndi bu waa ji tam hmm. ñun nag leen def ci wóor ñu wax dëgg hmm. parce que itam nit ki defal la loo xam ne wóor na ne rëy na hmm. ndég bégal la te mënoo wane ne bég nga loola pour ñu rafet te ñun defuñ ko dara xamuñ ko def dara waxaatanaa merloo ñu te jël nu bu xoo teexam mooy beru gim beru nit ñi al multabis bu raaji lënt moo ji bu waaji waralam te ñun xamuñ li tax almahdur bari bu ñu ngantal fii jom mu àndi bu aji yeddam xam ne koo ji wax dara itam dañ gis ne dem na hmm. waaye nit nag moom boo xamul hmm. sooy boo nga de tey ji moom hmm. mu ne illaa an naa nari ñun nag alal noyal nañ la wooy ñaar ko alxaw la wax waxa si naa te ñu ragal alxaw la xewal bi masala melaat bu may waree fokk rek nga soppi séddale yi de waaye gannaaw xamuñ ko nag te mag si nag biñ demee bay wax ak moom dañoo waxee ak moom ci maslaa wax ju nooy ak góor gi doo ñëwee fii bokk ci waxtaan la foofu moo gën a neex noonu lañ waxee moom ndax ragal nañ wax ko mbir mi gën a ñaaw wa rum naa bépp bu ñu sàkkoo rek ay yëf yëda ba mu bëbët kama fit naa ñun niñ bëbbee suñ bëggee ñëw hubbeeku gi ci ñun aw yu fiida wala mu bëril waxtaan fii maa ci li nga xam ne naa bëril nañ ci waxtaan wala mu bëril waxtaan enrada mu du mooyu enrada xel li yëti du muy woy kawe yi mm. wala ku kawe xan mm. la asali na ci ñu suufe ji mm. alxel lii dañ kaa wax jublu ci nit ku kawe dañ kaa wax jublu ci kër goo xam ne ñu ngi ko tabax ca kaw man la jamono alal yi watala mu jàng in hada illa satiru lawalin in hada delli illa satiru lawalin dara defe ne ñu njëkk ñaar saa soo xamee ne daal ñun ñu ngi koy looy ku ci waxtaan rek mooy yi ngeen nekk ni ay fóor yu dara ngeen nekk dara loolu lay wax rek war ñu xebel bu mat rek wa kullama rum naa bépp bu ñu sàkkoo ay yëf yëda ba mu bëbët kama feet naa ñun niñ bëbbee mooy fireeku gi ci ñun suñ ko bëggee ci moom aw yu fii sax wala mu bëril waxtaan fii maa ci li nga xam naa fat naa bëri nañ ci waxtaan wala li ñuy wax ñu looy ko pour mu wax arada mu du muy arada lay kem du muy aji kawe and ardali na ci way suufe yi daf ñoo du mel ni duñ nawle watala mu jàng in hada illa satirul awalin in hada delli illa satirul awalin ndaga de duuti way jakk yi rek fene ñu jakk ñi rek waaye rek mbir mi naan fay nitu nag ñàkk xam lay yooyu wax ne xamoo ko loolu lay bëgg di dund. ku ne wax ne yow waxuloo. yow daal loolu lay bëgg di dund. ñàkk xam lay wax. tere wax ne xamoo. xaaral ne su ma topp nag ka am na xam yàlla daanaka jomm nag. xaajatu moo ko jeex. wa nafsa bakkan alabiyata bu daa ji bañ. wa kaan na naf dañoo xam kaan na bi. naajat bi deyaale nag moom. ah mel ni nag bañ ku ko xeebee ne kii daal dafa réer te da ko nëbb mm. te bu waxul xel yi mën day loolu mm. moo ko gaal mm. fa dala fa mu jege was dala fa mu jege ba tey waxalaa mu summi asalafa reylu ga nam noonu këj nit ñi booba daal ko teg fële dal di firee ko jege si nit wa badala mu joxe ay yatalafa mu dabatalat maa li nga xam ne salafa wéy na parce que daal li ko nit ñi rawee woon ci waxtaan yëpp dan leen ko jël su ma sarxaa topp mu sàmmulu sama saamir dégg aji ngonaar mu ne kon dégloo leen man mu wax ak mu dal jañu ka sëy li mel ni yool ne alhamir wu daa mu commencé na di wax nag amul taxaw de dafa mel ni wa qaal mu ne indi ajibu arwiha bila kadibi anil hayaali fa kannuni abal hajabi raaytu ya qawmi aqwaman ghidauhumu bawlul ajuusi wa ma alim na tar hen bi dañ ci jàngay way tuuti mu ne hen di nekk la fi man aajib ay kéema arwi ha yooyu danaa leen solo bila kadibil jëlul fenn anil hayaani walis jàkk jëlis jàkkaarlo maa ngi yor ay kéemaan yoo xam ne du ma ne dégg naa de du ne dëw na na dama naan gis naa yëpp dama leen gis mu daal di bëgg nettali hen di nekk na fi man aajibu ay yoo xam ne arwiha danaa leen solo mm. anen heyaane jële ci jàkkaarloo mm. bila kadi bi ci loolu kan mm. maa ngi yor kéemaar yu bëri ne duma leen ne faa dégg nangam mbaa diwa ma ne nangam li am mooy gis naa ko laa def fa kën noonu na ngeen ma kuniyaale abal hajabi su ngeen may wutal kuniya sooy wax ngeen ne abul hajabi mooy borom kéemaar yi arab ne waa bu kata jublu ci borom loola léegi mu tàmbali raaytu gis naa yaa qawmi yéen samay bokk aqwaman aw nit ñoo xam ne xidauhum seen dund bawlu naa joosi gaanu waaye ak màggatam jigéen la ma gis naa ñoo xam ne sawa màggat ani jubluuma nag ibnatan hena bi doomi sing jubluuma nag doomi lu bawoo ci sing jubluuma sànga nga ne ko ah loolu de neexu sax am mu ne bawlu naa joos mooy labanul wal ajuz aydan min asmaa'il xamri mu ngi bokk ci turi sàngara yi adam mm-hmm. law jubluwuma boobu mm-hmm. wa musnitina min al arabi xutuhumu an yastawa xirqatan tuni min assaxabi mm-hmm. wa qadirina mata mata sunumu aw qasaru fihi qaalu dambu lil hatabi wa kadibina wa ma xatat anamiluhum harfan wala xarawu ma xutta fil kutubi sooy boo ñu jàng loolu wa musnitina gis naa way beekoor hmm. min al arabi ci arab yi boo hmm. demee ca dëkki xàll ya ca sàmm ya hmm. gis naa ba ñoo xam ne ñu beekoor ñoo xam ne xóotuum seen dund daal ayes ayes ta boobu mooy ñu wàjji xir saga boo xam ne tool yi dana mu doy ani saxa bi ci xiif wala mina saxa bi ci ñoom daal suñu suñu suñu suñu xiif bi daal sagar la ñuy jàll ak lekk rek danañu yëngi sagar la ñuy jël lakk lekk rek dootuñu yëgati fii wa musnitina gis naa way bee ko min enrabi ci enrabi te mooy boo demee ci àll ba ñi nga xam ne sàmm rek la ñoo def topp jur gis naa ko ñu bee ko ñoo xam ne xóotuwam seen dund a yëftawoo mooy ñu wàcci xiir xatam sagar tool ni oo dana mu doy mën a taxaw bi ci xiir ma ne ko sagar ku ko lakk muy doom doom ko lekk kano li ngay wax mu ne di alxilqa mooy alxidaa min aljaraad yi hmm. mooy jàpp ay soccet yu bëri hmm. nag ko noonu rek hmm. wa qaadirina gis naa ñu mën la ñu wax rek gis naa ñoo xam ne la ñu wax def mën nañ ko lool te matama saa waxtu wu ñaawee daal sunu moom seen liggéey seen liggéey daal saa su ci échec duggee aw xasaro wala ñu gàttañ lu bii ci moom wala sax du yëfi ñàkkaa tey waaye ñoo ko sàgganee xaaloo ñu naa asam bu bàkkaat bi li naa tamit ñaan na ma man gis naa ñoom man ñu man lu ñoo def mm. te bis boo xamee rëcc rëcc na ne ñu layee mat mm. nga ne ko dum da ci liggéey mm. wa xaadiri ne gis naa ñu man la ñoo def ñoo xam ne matta masa waxtu bu ñaawee sunu moom seen liggéey saa su ñu amee rëcc rëcc liggéey ba demee wut na mu waroon demee aw xasaro wala ñu gàttañ lu bii ci moom wala ñoom seen jàgganteeg bopp moo tax liggéey ba demee wut na mu war a demee ñoo ca rek xaaloo ñi wax lay ne askan bu ilaata bi ñaar na matt bi nga ne ko matt lu mu doon liggéey mm. mu ne xaadir mooy ku de togg mm. xam nga xiir bu ci la ba wax xiir bu ci donc kan la yàgg naan tuma mm. almat alqaadir mooy attaari fil qirri wal qadir mooy almat boo ko fiyaa mooy lañ ja toggee wakkaati bi ne gis naa ñuy bind de man maa gis ñuy bind wa maa xattar te rëddut anaamiluhum seen wali baaraam xarfan wenn xaraf man maa gis ay bindkat yoo xam ne seen loxo yi rëddut benn xaraf wala xarawo jànguñu sax maa li nga xam ne xutta bi ndees na ko suñ ko tudd ci téere li am mooy xamuñu dara sax loolu nga ne ko déet ay bindkat nga wax bindkat bu génnewul arab kan kon lan mooy maanaam kitaab laajuloon kat da koo déggagum mu ne kaatib mooy ku de ñaw mooy ku de ñaw alkaatibiin mooy alxarraasoon alkaatiboon mooy alxarraasoon ay ñawkat yu de na wax kataba saqa ñëw na mbuus ga wal masadata mooy defukaay ndox ga isa xarasa wuma su fekkee daf leen ñëw wa kataba al baxlata dañu wax kataba al baxlata barkeel ba awe naaqata isa jamaha bu booree bay na sabreha mooy diggante ñaari nga ci kanamam ne bañu di ko yooyu qaal saay waykat ba nee na laa tamananna fusariyan sa bihi ala qudusika waktuba bi atyari lata manan na gul hoolu fusaariyan ku re haskanu ci fusaara xalawta ku fi nga bii ak moom ala qudusika ci sa gërëm waktuba ñëwe al gërëm bi bi atyari ci ay wëñ wa taame yana maqaaban fi masirihimi ala takammihimi bil baydi wal yarami ñu jàng lool wa muntadina sawi nublin badat lahumu nabilatun bansana minha ila al harabi wa ñaagire xabbi wa asbatan lam tara baytan haqiqa wa xarajat jusiyan bila shakkin ala rukkabi dañu wàññi bind wataabiina gis naa way topp moo xaaban li ci fii masirihim ci seen dox xanaa te kër mi ñëw ànd ak seen ak nëbbu nag fil bayri ci mubbu koŋ yi wala bi ak ci fakk yi man maa di ñoo toppam li di waaye li cin bi yëpp nag terewul ñu ngi soo seen i mubbu koŋ de amee seen i débat ma ne ko ma li cin jar na loolu ma li cin jar na loolu wataabiina naa way topp moo xaaban li cin man maa di ñoo topp li fii masir yim ci seen dox ala takka mi maa nag seen ak nëbbu nag fil biir yi ci biir bu koŋ yi hmm. wala yële bi ak ci fakk yi hmm. wala fil biir yi ci jaas hmm. yi wala yële bi ak ci bu koŋ yi ah, wala seen jaar na yi dégg waaw waaw mu ne déedéet daan bi ni mooy mooy mooy mooy mooy fakk yële mooy bu koŋ dégg nga mu ne moo xaar xoqaaf mooy dara bu ëpp xare mooy arraaya wa kaanat raayatu nabi sallallahu alayhi wa sallam tusamma al xoqaaf yonent bi raayam doon nañ ko wax loolu wa muntadira gis naa way pencu ñoo nekk ci ab garam bala so wi lu bi ñooy boromi xel ñu doon ñoo xeloo xelu ñoo xam ne ba def feeñ na lëgum ñaa leen nabiratu nit ku xelu jigéen ju xelu fan sanaaw ñu wëññeeku ilal arabi jëm ci law minaa ji moom ñoo am xel lañ de. ku am xel nekk ñu daw. ko am xel daw nga ne ma ko daf la ñuy daw. dina gis naa way feeñ tuddee ñoo ne ci benn garam bala. te wéy nu leen ñooy borome xol. ñooy borome xel. ba dañ ñuy feeñ na lëwum ñaale na bii la tun aji xelu ju jigéen. fan fanam ñi wëññeeku ilal arabi jëm ci daw. Mm. mi naa ca na bii la bokk. mu ne annabila mooy aljibatu min hmm. boo da bëgg xëy ngi jege yuqaal def na wa minhu tanabbalal bayan hmm. isa maata bu dee waar waa te mu xëy hmm. adina tun wamas batam gis naa mbooloo de moo xamee lam taram mos de gis albayta néeg ba anatiqa bu daa yàgg te mooy alkaabatul musarrafa xam ne mooy awwalu baytin wudi'a linnaas mm. gis naa ñoo xam ne mosuñ ko gis de mm. waqal hajjat te mbirum haj nañ de mm. juti yan mbirum daway sukk ala rukka bi ci seeni bët yoo balaa sakkin ci loolu benn bi te haj nañ ba sukk de ne ko ah te mu ne mbirum ma gën a gën a haj na muy demee waa ñu doon dexul ak xam waaj waaw ba daan gis naa mbooloo moo xam ne lam tara gisum albayta néeg ba akbatan bu ñëwee tere ci aqwaama raayatu yaa qawmi aqwaaman bu ñëwee tere foofu lañ ko wëri wa akbatan gis naa mbooloo moo xam ne lam tara gisum albayta néeg baanaa tee xabu daa ji yàgg waqaraa jët timirom haj na mu mbooloo mi jusiyan bi mu njëloy sukku ana rukka bi ci seeni bëti woo daa sëkkin ci loolu si mu ne déedéet hajjat mooy xëy na ci xulu ay gars yoo xam ne ñu ngi toog de xulóog moom mu xëy leen loolu lañ jublu ci hajjat jusiyan ay xalabat noteera mm. bil hujjati ci lay mm. noonu loolu la ñu tegu mu jaadi li nañu yooyu daggaat rek moom mm. jaasi nañu doy sukku xaaru ko bi ci seen i bati yoo jusi yu mu ne jàmm jaasin la waaw bu ñëw rek si laayi du yàqoo mi aqwaaman bu ñëw rek dafa bëri tekkatee leen kaasima mm. te sonn nañ maa ko gis mm. muy ñaari dëkk yoo xam ne bokkuñu réew sax nag mm. bàyyi ko ci dëkk bi ci guddi àgg ca bële <coughs> parce que yoonu jigéen baaxoo wut gaaw far sonn la ah, loolu la war a wax far sonn la mu ne mu ne liñ ci jublu moom lay wax mu ne kaasima tan de wéy nëbbu mer la sabaana xëy nañu kaasi matan bi mu ne way nëbbu mer waaye mm. ñu ngi ci yoonu bi de ñu ngi mer na waaye leen naqari waxuñu ko mm. la tawriye bi nekk mm. wa mudlijiina saraw min ardi kaasimatin fa asbahu hina laaha sufu fi halabi wa mudlijiina gis naa way reñaan ñoo xam ne saraw reñaan nañu min ardi kaasimatin tukkee ci suufas kaasima fa asbahu ñi xëy xiina laaxa waxtu wa feeñee mm. asuba suba mm. fi xalafin ci xalaf mm. man maa gis tukkikat yi guddi yoo xam ne dañoo dépare Karima ci guddi bala bët di set ñu àgg xalaf nga ne ko du doxu benn fan mu ne dee rek faas bu hoo ñi xëy xiina laaxa subi fi xalafin ci rattu soow xalaf ay ya as bu hoo yaxliboona labana foofu tawri yëpp nekk wa yaafian lam yulaamit qattu ghaniyatan saahatuhu walahu naslun min al aqibi bu ñëw rek ci aqwaman lañ ko saayatu ya qawmi aqwaman wa yaafian gis naa aji màgg ah xale bu góor bu xam ne mu ngi dëhër si lam yulaamit mosul laalante qattu ci li way ghaniyatan jongama mosul jaxasoo ak jigéen saahatuhu gis naa ko walahu te ñaan na ko naslun ngerte mu ne naq bi laaloom ay sët la te am na doom loolu maa ko gis ne gaa góor gi li nga gis suma ranke na mu mooy daw aqib mooy testeen te daw di dëgg say testeen loolu na wax dëgg yàlla xale mën na koo def ci la tukkee wahum min kulli hadabin yansiluun an naslu haahuna al adbu mooy daw qaala wax na moom borom bi taala ne wahum min kulli hadabin yansiluun wal aqib mu aqarul xadam mm-hmm. mooy testeen mm-hmm. gis nga ko mm-hmm. wa saiban xayra lil masibi bada fil badi wa huwa yu sinni lam yasibi wa saiban gis naa aji bi jaw xayra muxfin koo xam ne dumu aji nëbbu lil masibi bi jaw koo xam ne nëbbul bi jaw bi bada feeñ na fil badi ca àll ba ca dëkk koo yàlla ko gis waaw te moom pëtt yu sinni aji ndawi xat la mm. la muy si bay jaawal te nag xale bu tuuti la amul benn kawar bu weex mu mm. ne dafa bay jaaw nëbbu ko te nag xale bu tuuti la amul benn kawar bu weex naa tuuti kon muy tanaaxut de mm. mooy de saib mooy kuy jaxase soow kuy njar soow moom la loolu na jote wala kawar bu weex dara saib mooy masiju laban wal masib mooy al laban al mamsuuj soo muy jaxase yuqaalu fii mm-hmm. masib ak masoob mm-hmm. xam nga saaba ya soobu mm-hmm. mooy la joofu waaw bokkut ak saaba ya siibu muy la joofu yaa bokkuñu saaba ba jaw na ya saaba jaxase na wa murdaan bi libaanin lam yafu famuhu raaytuhu fi sijaarin bayni sababi wa murdaan gis naa ku ñu nàmpal de ak ku ñu nàmpal bi libaanin ci soow lam yefu tuddagul dara fa mu woo gémmiñam mm. raay tuho naa ko fii sujaarin ci xuloo mm. bayi ne sawe bu raaji bir ci sawab mm. liir ne man a gud a wax dara ma fekk ko ci xuloo bu tat laa naa ko loolu <laughs> te neexu la xam loolu <laughs> dafay neexu la xam mu ne déedéet sujaar façon teg la bu xam ne dañ koy teg ki kii nuñ ko waxee façon teg lay doon bu ñuy teg ci kaw gélém da ci war su fekkee amul ker mm. boo amee ker nag mooy xaw daj ci mm. nga ko baax a mm. la de asijaar al mahabba maalam takun mudallalatan fa in dullilat fa huwa al xaw daj wa sababuna al hablu mooy buum mooy dañ ko takk moom dëgg teg ci xale teetu ci xale mbit bi sababi ila sama lu ci tegu wasaare an duratan hatta ida husidat a xubayra aye waa xustarabi mm-hmm. wasaare an gis naa aji bay mm-hmm. suratan surra dañ koy firee mboq mm-hmm. hatta ida xusidat bu góobee feeko saara mu mujj xubayra yeex waa dana ko soppu ak xustarabi borom siigale boxam man borom mandite man gis ku góom ku ku ji mboq bay ko mu ñor nekk xubayra ñu ma defe wax ne li nga ji moom ngay saxle li nga saxle ngay bay li nga bay ngay ñorle hmm. loolu naka lay demee hmm. mu ne alxubayra buñ ko waxee fii hmm. façon sàngara la bu xam ne ñu ko jële jëlee ci moo tax rek al muskir al mutaxas min asurrati wa yusamma sakraka wa bil hadis iyakum wal xubayra fa innaha xamrun adin alam lu ci teg waraakiban wa wa maxlulun ala farasin qad xulla aydan wa ma yanfaku an xababi waraakiban gis naa aji war wa watema maxlulun ku ñu gëf la mooy ku ñu kutum la ala faratin ci kaw fas woo xam ne qad xulla gëxiif na ko mooy kutumeef na ko aydan ba tey nit kuñ kutum teg ko faruñ kutum wa ma yanfaku te dañ moom fas bi an xababin ci ñàkk sama soir gi daw na baax sama soir gi daw na baax loolu man gis naa ko da nga àggoo gi li nga gis tubaaraak keneen mu ne maa loolu mooy nit ku mar mm. ah, xool la mooy mar nit ku mar war war fa bu mar di dawal mm. kooku du marankewul xam nga waaw ah, waraaki ban gis naa aji war wa mm. tema max loolun ku ñu gëx la mooy ku ñu kutum la ala farasin ciw fas xat xul la wow gëxees na ko ayatan ba tey ba ma yem fokk tudd dañ fas wa an xaw bin ci ñàkk al max loolu xam wuna alasasaan mooy aji mar xul la mooy atisa wasaya din tuluqin yaxtaadu rahilatan mustajilan wa huwa masurun axoo kurabi mm-hmm. wasayidin gis naa borom loxo mm-hmm. tuluqin buraaji boyu loxo bu liibar mm-hmm. man gis naa koo xam ne loxoom dafa liibar yaxtaadu mu ngi xomat rahilatan gélém mu ngi xomat ak gélém mustajilan daaji gaaw de dox dox bu gaaw booba te am masurun ku ñu jégg la ku ñu ceene la mm. te ñu ko ceene mm. ku ñu jàpp la mm. axoo kurabin borom mi njàqare la ma ne ah kuñ ceene loxo bi du liibar moom kooku <laughs> loxo bi du liibar loxo bi du liibar mu ne masur mooy koo tëju gaanu waay ku manda gaanu waay xam nga dina métti ji moom toor al masur alladi yejulul asra wa waxti basul bawli mooy tëju gaanu waay wa masiyan tahwi matiyatuhu bihi wa ma fi alladi awrastu min riyabi wa jalisan gis aji jékki de masiyan ku daa dox te wii dana daanu mooy dana gaaw ma téyetoo bihi ak moom ah boole toog dox ak war ci benn jamono na ko waaw ko wa jalisan gis naa aji jékki masiyan ku daa dox te wii kooku dana daanu mooy dana daw ma téyetoo bihi ak moom comment fii la te nekkut ci li nga xam ne. Mm. aw la su naa ko min riyabin yenn ay sikk. Mm. te li mu wax ne bu ci kenn am muy dengi dengi mm. gis naa ko. <laughs> ah dëgg ko leeral. mu ne almaas mooy koo bëri jur. gis ah, mooy koo dem ci dongo mooy kuy dem ci dongo. al jaalis mooy alaati najdan. wal maas yi alladi kasurat maas waalehi ci loolu fasara la firee baaduhum lenn ci borom xam-xam yi xawlu waxi sama borom taala ne anim su wasbiru kaan na ko daanaka moom doa un ñaanal la lëfam ñaal leen bi kasratil masiyati ci bëri ndox teef war na ma wal baraka yokk ak barke wahaa i kan ajdamal kaffayni daa xarasin fa in ajibtum fa kam fil xalqi min ajib waxaayi kan gis naa aji ràbb mm. aj damal këf fay ni kuraa ji dagg ji ñaari tënk mm. man gis naa kuy ràbb te amul loxo mm. man ràbb na loxo lañ koy defee saa xalatin kay borom ak lu man ta wax sax fay naa jibtum su ngeen yéemu su fekkee da ngeen yéemu ah yàlla mu bëri kéemaan rek fa kam aji bëri fil xalqi nekk na ci bi léegi min ajabin ci kéemaan su ngeen yéemu yàlla mu bëri le kéemaan rek mu ne alhaa ik haahuna alladi mooy koo xam ne saa masa buy dox xarraka muy yënga mm. man ki bay ñaari mbaggam mm. wa fajjaja muy mu hubbi mu rinkal mm. bay na rug ba tey diggante ñaari bët moom mooy wax ne buy dox tànk yi day hubbeeku mbagg yi day yëngatu mais loolu mooy xaak xaak xaayi kooku nag mën na ñàkk am loxo loolu jote wala loxo dara wasaan yan fii mu de wada sotaatin kasarri rumhi qaamatuhu sadabtuhu bi minan yasko minan hadabi wadi sotaatin kasarri rumhi mu'taqilin bi misli xayra hayaabin wala xayra hayaabin wala wakili boo demee sara la wax ne satru wayu hariri la nasru naa la boo ca demee la wax ne wayu hariri la dana la wax dégg nga mu ngi nii sataatin bëri borom taxa gis naa borom taxawaay kii dafa soxla nasab ne sataatin kii indi waa wurub ba soxla jaar ne wasi sataatin wadaa sataatin gis naa borom taxawaay bu xam ne kasar mi mu ngi mel ni boppu guntu mm-hmm. xamatu woo taxawaay mm-hmm. koo xam ne taxawaay bi dafa jub xocci mm-hmm. saadabtu woo dajjal naa ak moom bi minan ci minan dama ko gis minan yes ko muy tawat minan xade bi xoje gonde mu ngi jàmbat gannaaw bu dëng ah ku xam ne taxawaay bu jub xocci laa amee ma dajeeg moom minan muy jàmbat xoje gonde loolu de yow neexoon xam dëgg dëgg daal mu ne xadab mooy dongo yéeg dongo dafa métti al xadab martaba min al ardi wasaayan fi masarratil anami yara israhahum masaman ka zulmi wal kasibi wasaayan man gis naa kuy dox fi masarratil anami ci mbégi nit ñi gis naa koo xam ne mbégtey nit ñi rek ci lay dox te nag yara dana gis israhahum bégal nit ñi masaman muy bàkkaar te te pour moom kontaan loo nit baaxul ka zulmi nit tooñ doxee bàkkaar noonu la gisee ni kontaan loo nit baaxul wal kasibi ak ni kan doxee bàkkaar nga ne kon lu ma wut lu ma wut kontaan mu ne ifraax mooy diisal ñi mm-hmm. mooy de teg ñi bor yu diis mm-hmm. mooy ifqaalahum bi dayni mm-hmm. ci la tukkeel yonent bi wax ne fil islami mufrahun ay musqalun min ad-dayni aw yuqda anhu daynuhu jërë nga mbiru Usayfama Juhaynata Usayfama Juhaynata ak Sidna Omar ah iddaanal muridan boobale mm-hmm. wasaayen gis na aji dox mm-hmm. fii masarratil anaami ci mbégtey nit ñi mm-hmm. yara dana gis ifraahahum bégal nit ñi fekk diisal leen ci bor moo ko tax di wax ma saman muy bàkkaar ka zulmi ni ki tooñ ni tooñ doxee bàkkaar wal kadibi ak fen wa muxramam bi munaajaati rijaali lahu wa ma lahu fi xadiisil xalqi min arabi wa muhraman gis naa ku ñu soppaloo mm. bi munajaati rijaali ci déye góor ñi mm. la woo ñaal ko gis naa koo xam ni bëggee ku ko waxtaan mm. waaye wa maa la woo ñaalu ko min arabin benn aajo fi hadisil xalqi ci waxtaani bi défi kon bëgg ko waxtaan ak bi mooy mu ne hadisul xalqi mooy fenn waaw nit mën na bëgg waxtaan te fenn du ko sax hadis mu ne alxalqu haahuna alkadib mooy fenn ci la tukkee in haada illa xalqul awwalin dañu ko jàngee noonu wada dimamin wafat bilaadi dimmatuhu wala dimama lahu fi madhabil arabi wada dimamin gis naa boromi kóolëre wafat koog matal na bilaadi ci kóolëre dimmatuhu baatam gis naa ni ko xam ne ku sérieux la sàllaa ba mu ba mu ba mu lonkante ni kóolëre matal nag wala si maama déet ay déet ay kóolare mm. la woo ko ñaal mm. fii mazhabil arabi ci mazhabu arabi te amul benn kóolare mm. nga ko gore nga gore na matal na kóolare ne amul kóolare loolu mooy waxi lan mu ne dimaam bii nii asaani jamu dammatin la wa hiya albiiru alqalilatul ma mooy teen bu néew ndox mazhab mooy maslak maanaam amut ay teen mm. yu néew ndox mm. ci barab yi nga xam ne mooy àll bi mm. ay maa lahoo abarun qalilatul maa fil barri wadaaqu wal mastabaanat qattu liinatuhu waliinuhu mustabiinun gayru muxtajibi wadaaqu wan gis naa boromi kàttan gis naa koo xam doole mastabaanat mosul bir qattu ci liwéy liinatuhu noyam kenn mos da xam ci moom noyam waliinu woo te nooyal nag mm. e eh, mustabinun aji la de mm. xayru muxtajibin du ma aji hiidu mm. nga ne nga ne nga ne mastabanal xattu liina tuho dellu ne liina woo mustabinun loolu mooy liin mooy tàndarma dëgg waa maa dab ma ma qataatu min bima ata bal yaraahu afdalal qurabi wa saajidan gis naa aji sujjoot fawqa fahlin ci kaw kuy xayra muktarisin duuma ji faale bima ci li nga xam ne ata dikkal na ko bal li fi nekk dafa gis lim dikkal afdalal qurab mu gën ci jaamu yi nga ne sujjoot kay boo koy def xanaa fi borom sori sujjoot loo koy sujjoot waaye lan mooy maanaam bëgg sujjoot dem ba yëg ci kaw kuy sujjooti loolu may waxi mm. mu ne faxlu mm. xasiir faxlu day nekk laltu boo xam ne ñu ngi ko jëlee mm. ci xobi di tàndarma man nga caa sujjoot al xasiir al mustaxab min fihaali naxli lu ci tegu wahaadiran muliman man zalla yaxdiruhu ma talattufi wal maxduru fi saxabi wahaadiran gis naa aji ngantal mu mu'liman kuraaji métital mm. man ki nga xam ne salla yendu na mu mm. yan zéro de ko ngantal mm. man maa gis koo jàppal nit ngant te jàppal ga ngant kat mu ngi ko ca métital de maa talatu fi xam nag xam ci moom yërmande lool nag te boole ko dafa def ndànk lool na wal mahduru te kañoo ngantal moom fi saxabin mu ngi ci coow kañoo ngantal moom di yuuxu ngantal nit de ko métti ngay ngantal di yuuxu te nga jom yërmande mm. lu la neexul a xam haadir mm. mooy ngaamaan mahdur mooy kuñ xarfal mooy njulli mm. waaw ni mu ni arab waaw mu bëri ay mufradaat mu ne alhaadir mooy alxaatin kuy xarfal mahdur mooy almaftun ku ñu jongal wa baldatam ma biha ma un li muxtarifin wal ma u yajri alayha jarya munsarifi wa baldatan gis naa dëkk boo xam ne maa bi haa nekkul ci moom maa u ndox li muxtarifin ñaal aji tànk man gis naa dëkk boo xam ne man la faa tànkee dara ci ndox wal maa u te ndox nag yéegi dana daw xale haa ci moom jaree munsarifin daw aji daw te léeg nga gis ndox dafa yol waaye man la faa tànkee benn bata ndox te ndax dana faa yol de maa gis dëkk bu mel noonu dégg nga baax a baax gis nga furje bii ni dox diggante heen bi ak bii mm. moo tudd balda ci waxi arab mm. rongañ dana ci jaar mm. waaye kan moo jaar waxe kenn du ko def waaw al balda mooy al furje yër yër beneen xaaji bay ne ci diggante ñaari heen wuyu sama aydan al balja wa qaryatan doona uxoosil qataasu hinat bi dayla min haysuhum min xulsati salabi ñu jàng loolu wa qaryatan gis naa dëkk hmm. doona ofosil xataa bu xees gàmbab tippurip hmm. dëkk boo xam ne xemul ni gàmbab tippurip maa ko gis hmm. su hi nag feesalees na ko bi day min ci maas te maas lëmma fa dëkk xay suum seen dund min xultati salab bi mu ngee tukkee ci fifiti salab te na salab luñ nangoo ci xare day te dañoo dundee ñoom maas googa de <laughs> waaw wala kiiwaan mu ne xariya mm. mooy baytu naxli mooy mooy mooy mooy mooy mooy gàmbul xorondom mooy kër xorondom mm. mooy baytu naxli mm. day la mooy annamlul kasir tàndama yu bëri xulsatu salab salab mooy li a usajar xobidika waaw ni mu ni mu déggee arab ki man nit ku xéeme la ari nit ku xéeme xéeme la waaw sama nga baax a baax waaw uqsimu billahi wa ayatihi كمسعر الحج وميقاته أن الحريري حرى بأن نكتب بالتبر مقاماته معجزة تعجز كل الورى walaw saraw fi dawi miskatihi waaw mu ne day giñ ci yàlla da giñ ci ayatullahi da giñ ci almasarul haram da giñ ci mawaqirul hajji nekk hariri nee na hariri muy liggéey maqaamaat boo doo bëggoon téere bi jomb daa ñii ko bindee wurus parce que téere bi moo ji sala boo xam ne amul benn kaatib mm. boo xam man nga indi lu ko mel daal loolu la wax daal mm. <laughs> loolu la wax loolu la wax mm. nga atayiru moo ko wax wa qaryatan gis naa dëkk doona ufosil xata bu xees gàmba piprifu su xiinaat boo fees boo na ko ba day la min cig maas bu xam ne ay suum seen sala bi mu ngi tukkee ci fifiti sala boo jàng alquran ba mu daj mm-hmm. baat boo dikki ci alquran rek mm-hmm. xam na bu bu ko demee ci maqaamaat mm-hmm. lu may benn baat fa dam dama alayhim rabbuhum baatu dam dama amul amul dara lu mu xetoon ci maqaama su ko mayoon amul baat bu dikki ci alquran te bu ko demee amul ci maqaamaat maanaam téere dëgg la téere dëgg la dëgg la ni ko mën jàngale

min ru'yati ba gisam mm. al insaanu nit mm. hatta yura ba gisee ko fi mm. am na el hujubi ci ganjaay tere buy kiira yi gis mu ko maa gis vidéo boo xam ne su fekkee rek dootoo ci gis ah vidéo boo xam ne buy génn nit na bu maa ko gis nga ne ko ne ni dooru koo gis mu ne kaw kaw Hmm. mooy lii nekk ci bët ni mel na xel noonu hmm. xam ne day nëbbu ñu rayu peru bët hmm. su ko ñu rayu bët su ko defee nag euh, insaan bi mooy insaanul ayni loolu du ñu ci bët ak nubtatul bayda alladi taxdusu min ayni xeetu naaw la wal insaan haawna insaanul ayni wa kaw kaban gis naa bidiw yatawaara boobu dana hiidu xenduru yeti fa gisam alinsaanu nit mm. hatta yura ba gisee ko mm. fii am naa rujubi gën mm. jaay tere wuy kiiday waram satan gis naa neefare bu xam ne xuwi man xaymaa lees na ko maa lan halal ju xam ne la koy ñaal na ko xatarun kem bu rëy xatarun daraja bu kowe man maa gis neefare bu xam ne fay nañ ci lu bari wana su sayi bi ha te bakkanam borom day ah lan sa tib tayo bil maali ci haraji waaye toxul borom nangu de kaala bi kewaal mooy raw sax mooy muqaddamul am bi wala mën a fay borom a fay borom naa bagaan min nudaarin ci wurus xaalisin wudaaji sell suriyat boobu jëndees na ko bi xiraatin ci xiraat min a zahabi ci wurus bandal mikaasi ci gannaaw waxante lool nag man maa gis ndabal wurus wuñ jaayee xiraat te te waxante dëgg dëgg dëgg de moo tax sax njaay ba wasaafatan gis naa bagaar te mooy ndawal ñam lu mag a min nu daarin tukkee ci wurus xaalisin hmm. wuraay di sell na hmm. ko hmm. baadal mikaasi ci gannaaw waxante bi xiraatin ci xiraat mina zahabi ci wurus mu ne déedéet nu daar haahuna sajarun name mooy garabu namo man nga jaayee tam nag jaayee ko lu seer a seer wa min u qawlu baadi taameen laa baasa an yusraba fi qadhi wa mustajizan bi xasxasin liyat taama mm. adallahu min aadihi falam yahihi mm. wa mustajizan gis naa aji lelo aji sa koo xare mm. bi xasxasin ci gàncax bu ñu naan xasxas liyat dafa ngir na mu jañ maa li nga xam ne adallahu jege na ko keral na ko min aadihi ci noona falam yahi te soyul maa gis ko ragal ay noon hmm. bëgg ñu sori ko hmm. mu def ci gàncax ak xas-xas hmm. bëgg mu jàppale ko gàncax ak xareel ko ba noon ñu sori ko gàncax la suñu abu naw bi mu tëji san gis naa aji sàkkoo leen bi xas-xasin ci gàncax ak xas-xas li ya dafa am mu jañ maa li nga xam ne adal la woo jege na ko mooy mu ngi koy karal mina aji ci noonam wala bi xis taxul mu sori mooy alxasaas mooy aljamaa mm. alayhim durohon wa asliha mm. mooy mbooloo mu amee ay ngànnaay mm. amee ay mbubu kom ñu koy ñoo de xare wa taalama marra bi kalbun wa fi famihi sawrun walakinahu sawrun bila danabi wa taalama marra yàgg na guroombee biyee ci man kalbun dawkat dawkat yàgg na maa romb wa fi famihi te nekk na ci gémmiñam dawrun yëg ko nag mm-hmm. daw kat yow ma yàgg na maa romb mm-hmm. dal di fexu yëg mm-hmm. léegi wala ki ne li nekk moom nag dawrun nag la nag bila solo bi ci lu ci lu genn waaye nag bu amul genn la ne ko moo ci desoon nag de <laughs> ne ko moo ci desoon nag de mooy dawru mooy dogitu forme am xam nga daw kat war na ko mën a sax gis nga ko. gis nga ko. xam nga dawkat war na koo mën a seq wax dëgg yàlla. Hmm. waaw wataalama marre yàgg na bu rombee bi man kalbun dawkat. Hmm. wa fii famihi te nekk na ci gémmiñam nga sawrun nag. Hmm. walakin wa li fi nekk moom nag la nag bila sana bi ci lu ci lu geen. dawkat yàgg na ma rom mu ngi sexu yëkk de. yëkk na xamul geen. ma ne ko ah lii de moo nag. mu ne asawru. mooy xidaatun al xidaa min al mm. mooy dogitu formaas mm. xam fañ la jigéen ñi dog wa ara naadiri mm. fiilan ala jamalin wa qad tawarraka fawqa rahli wal xatabi wa kam raa bëri na sama bët laa wax de bëri na bu ala jamalin ci kaw ak gëlëm ñay war waxata warraka te mbir moom penku na mu nga toog nag sereng layoon faw hmm. ka rax li ca kaw tegga hmm. wala wal xata bi ak kaw tegga hmm. mu nga mu fereng layo ci digg tegga nag loolu maa ko fereng layo ci digg tegga nag ne ka loolu de kéwaat la mu ne alfiilu mooy ku jub mooy ku juum ci pexe mooy arrajul alfailu rëyi ku daaji mooy ci pexe mooy ko xam wa kam laqiitu bi ordil biidi mustakiyan wa mastakafatu bi jiddin wala laabi wa kam laqiitu bari na bu ma dajee bi ordil biidi ci biir àll bi mustakiyan aji tawat man maa ji ci àll bi ku de jàmbar rek wa mastakata mos da tawat na xëttu ci li wéy fii jiddin ci dëgg wala laabi lu du caaget ba te mos da tawat ma ne ko mos a jàmba nga di ko gis muy jàmba mm. ah loolu de fii mu ne tanaqudi ma la yàqa li nga wax di yàqu xam mm. mu ne mustaki mooy koo gàddu mooy koo gàddu mbuus mm. waaw mooy koo gàddu mbuus waaw xam ko mën naa bañ a tawal waaw almustaki mooy almuttaxiru sagwatan sagwa woy alxirbatu saxira mooy mbuus goo ndaw mooy gu tuuti daje ku gàddu mbuus nag mën na nekk wa kuntu absartu karrasan li raayatin biddawi yanzuru min aynayni ka suhubi wa kuntu nekkoon na absartu daan gis kurrasan wala karrasan hmm wa bi dammi karummaan wa ka xuraat aydan dawaane léegi dañ wax kuraas sàtta mu mel na ka rummaan waaye ne kuraas bañ a mu mel ni xuraat kii na dafa ñu maas karaas wa kontu nekkoon naa absatu de gis karaasan gutt gutt lay doon bu xam ne buntu bi day xat li ran yéeti ñaala ji sàmm hmm. maa gis benn gutt boo xam ne kuy sàmm moo ko amee hmm. bi dawi ci xàll ba ko gis hmm. yanzuru mu ngi xoolee min xane ne ci ñaari bët ka mel ni ay jum mu ngi am ñaari bët yu leer di gis nga ne gutt bu ñoo buñ ko waxee kapsul yaxmilu alayhi raahin adaatahu mooy kii sàmm xar xar mi mu teg bagaasam bu leen jiitlee xar mi mu teg bagaasam bañ ko yenu mooy karraas wa kamraat muqlati aynayni maa'uhuma yajri min alxarbi wal aynaani fi halabi wa kamraat bari na ku gisee muqlati sama nagu bët aynayni ñaari bët yoo xam ne maa'uhuma seen ndox dana mu daw min alxarbi tukkee ci sow wal aynaani te ñaari bët yi fi halabin ñu ngi ci halab maa gis ñaari sewnde maa ngi ne ñaari sewnde laa de waxee naan te ñaari sewnde yi fi yàlla bi ñu ci yàlla maa gis ñaari sewnde yoo xam ne seen ndaw yi seen ndox yi ñu ngi daw de ba xoo xarbu te ñaari sewnde yi ñu ngi ci ne ko xala mu nga nekk ci fa gën a sori ci soor naka naka la fa yoon de di dawee naka la yoon de ba ci xar xarbu dafa àgg mu ne déedéet xëy na ni liñ ci jublu mooy ñaari bët alxarbu mooy mbuus ab rongañ su rongañ di jaar buy daw alxarbu majra damhe wal xay naa ne almuqlataani waaye soo bëggee tawriir xay ne ne ñaari taw ne ngay wax bil xanaa min xayri an xaaliqat kappaahu yawman birumin laa walam yasibi wasaa wasaadihan gis naa aji wóoral aji feeñal bil xanaa guntu maa gis ku signalé guntu min xayri an xaaliqat ci lu dul dahaju mm. kappaawu ñaari tempam mm. yow man benn bis biroom mm. hen ci guntuux te mos dëgg guntuux de laa déedéet wala mu yësi mos de buur sax ne na xare ji waaye signalé na guntuux kon nu mu ko signalé woon bu nga but ma ne alxanaa mooy ittifaawul ansi mooy bakkan bu yëkkati ko digg bi def ko xóot sadaxa bii mooy kasafoo génne na ko dafa mu te muraale wu ko wa kam ra wa kam nasaltu gisuma hmm? ko la wax nga ne wax naa ko de hmm? sadaa bi may kasaboo ictimaal amsuma taa du wasati wax ko wa kam nasaltu bi ardin la naxiila biha wa baada yawmin raaytul busra fil xulubi wa kam nasaltu bari na bu ma wàccee bi ardin ci suuf soo ne la naxiila di ay tàndarma bi aa su soo xam ne luy xeetoo garabu tàndarma mu fa def mm. wa ba de yow min ci gannaaw bis rek mm. raaytu ma gis al busra busra mooy meññeetu tàndarma fii tàmbalee xonq noonu mm. xam nañu koy firee naar xam nañu ko wala fil xulubi ci xulubi ci xoli tàndarma yi wala ci garabi tàndarma yi dëkk boo xam ne garabu tàndarma newu fa ma dem fa daal benn fan la gis busru mu ne al busru jam ho busratin la woowa almaaw alhadisu randi bil matar mm. mooy ndox moo xam ne bi mu ko tawee yàggagul mm. kii mosgiñëwjuriñ ko mm. wal xulub jamoo xalib la mooy teen buñ gas te pindalaguñ ko wa kam raaytu bi aqtarin fala tabaqan yatiru fil jawi munsaban ila sababi wa kam raaytu bëri na bu ma gisee bi aqtarin fala ci goxi xàll yi tabaqan ndëpp yetiiru loolu dana mu naaw fil mm. jawwi ci jawwu ji mm. mun sabban daa ji jeng mm. ilaa sababin jëm ji wàcc maa gis ndëpp loo xam ne mu ngi naaw na baax ci digg jawwu ji su demee ba ca mu bëggee dal dal de wàcc nga ne ko tabaxit ba ci ixtiyaara tabaxit ba ci xaraka ixtiyaari loolu kañ la waaw wa kam raayatu bëri ma gisee bi àqataalil falaa ci gox yàlla yi tabaxan ndëkku hmm. yetirum dana mu naaw sa jëmi ci jëmu ji hmm. mun sa bandaaji jeng hmm. ilaa sababin jëm ci wàcc tabax mooy alxidan min aljaraadi mooy ay njéeréer yu bëri yoo àndal dem ten waawa wa kam masayixa fi dunya raaytuhumo muxalladina wa man yanjoo min alasabi wa kam masayixa bëri na ay mag fi dunya ci àddina raaytuhum gis naa leen muxalladiina ñu ne ñuñ bëlën maa ngi gis ay mag yoo xam ne fañ fee sax ba faw waaw man an ana kan nag yan joo mooy mucc meneen xata bi ci àll ana kan mooy ñàkk a dee nag xanaa moom lañ koo laaj moom mi gis ñoo xam ne fañ fee sax ba faw rek <laughs> moom lañ koo laaj de moom mi gis ñoo xam ne fañ fee sax ba faw rek waaw parce que masaa yi bëri na ay mag fi duniyaa ci àddina raayatoon gis naa leen mu xàll dina ñu ñu bëlal ñu mm. ñu xam ne dañ fee sax ba faw mm. waaw man ana kan nag mm. yan joo mooy mucc nag mu naa tawi jaaro mu ne mu xàllat mooy ko yéex a bee jaww mooy mu xàllat al mu xàllat mooy ko alladi abta saybuhu wa kam bada wax sun yastaki saxaban bi man texin daliqin am daaminal xudubi wakam bada bari na bu feeñee liye ñaxal mu wax sun njaaxal yasta kii da tawat saxaban xiif bi mante xin ci tudduwaay dali xin bu daaji fasaha am daa bu gën a wéy mel xudu bi ci bant wala ci jaasi maa ji wuy jàmbar xiif te da ko waxee wax fasaha fasaha nga ne njaaxal ba ci wax fasaha mu ne wax su muy nit koo xiif mooy ar rajulul jaaya loolu lay firi wakam ba daa bari na bu feeñee liye ñihaan wax sun jaaxal mm. yastaki da tawa saxaban kii mm. bi mantiqin ci tudd waaye dale xin ku buraaji fasaha mm. am daa bu gën a wéy nel xudu bi ci bant wala ci jaasi gis nga ko bu baax de xudu jama xadib la wax rek ne moom la dégg nga wa kam daaniya mustanjin fa haadasani wa ma axalla wala axlaltu bil adabi wa kam daaniya bëri na bu mustanjin aji tàncu ku de tàncu de setal barabu sobe nekk ci bonam bëri na ma hoohee fa haadasani topp mu waxtaanal ma ñu de waxtaan wa ma axalla te moom yàqut bil adabi ci teggin wala axlaltu ma itam te yàquma bil adabi ci teggin te nag mooy ñu benn teggi yu diina de mm. parce que ñun nag li ñu ci fiq mm. mooy istinjaama bu ko nit di def mm. bëgguñu mu wax la ne mustan ji mooy kootoor ci doomu loolay firi al mustan ji al jaalis ala najwatin wa al makaanul murtafi mooy kootoor ci barab bu yëkkati wa kam anaxtu qaloosi taxta jumbudatin tudillu ma siita min hajmin wa min orubi wa kam aji bëri wakam wakam araxtu bari na bu ma yësalee xadoosi sama gélém tasa jumbudatin ci ron gàncax gu ñu naan jumbusa xam nga dañoo wutee gàncax yéen ku baax a baax mu ne gàncax goo xam ne tusillu dana mu keral maa siita loo soog min min ci hajam wa min arabit ak ci arab nga ne kerak jumbusa xam daanaka ñax la mu ne jumbusa mooy xubba bergeer mu ne xoru ah tuuti moo des ci ci ci malaaka yi nii mooy tuuti moo ci des mooy tuuti moo des ci malaaka yi nii dégg nga gis nga al jumbada mooy mu ne jamu robin la waaye al mutahabibatu ila zawjiha mooy jigéen ji fexe borom këram bëggu min qawlihi taala xoruban atraba wa kam nadartu ila man surra saahatahu wa damuhu mustahillul qatri kassuhubi kassuhubi wa kam nadartu bari na bu ma xoolee ila man jëm ci koo xam ne surra bégoleef na ko saahatahu ci waxtum wa damuhu te rongañam mustahillul qatri aji dooteeku ci toqala kassuhubi mel ni ay niir maa gis koo kontaan te de jooy lool maa ko mais xam na jooy yoo ne métit moo koy def mu ne surra mooy dagg nañu lu tam mooy xuti en sararuwoo wayu sama ma baqiya bandal xane a surra buñ dine li war li def surra jumbo te wa kam raaytu xamisan darra saahibahu atan sana waahiya al adahi wal hasabi wa kam raaytu bari na bu ma gisee xamisan mbubu mu xam ne dara lor na mu hmm. saahiba wa boromam hmm. attantanaa ba mu wëññeeku hmm. waahiyal anda yi daa ji doo adi ci cër walance bi ak i satti maa gis mbuum moo xam ne fa sonal borom ba mën a tudal <laughs> borom mën na ko summi ma ko def rek waaw ne sonal na borom ba mën a tudal maa ko gis waaw wa kam raaytu bari na mu xam ne dara lor na saahiba wa xataa sana bu mu wëññeeku moom mm. waa iyal aada yi daa ji doo aade ci mm. bi ak isabi mm. mu ne alxamis mooy daaba ju faraw de bëri lu muy tëb mooy addaaba alkasiratul ximaas way alwuso mooy tëb wal xabsi xam nga boo ko waree mën la yëngal ba sonnal la wa kam isaarin la wan dahra adlafahu la jaffa libdu hasi si seyri mustaribi wa kamisaarin bëri na ndirax ndirax lay mm. boo xamee la war na dëhëra su fekkoon jamono at la ko hoo sànk na ko mm. la jëf ko kon san kon pendi mm. lib du hasisi seyri lalab aji xiir dox mustari bi kuraaji dengi den kuraaji dox doxal koon bëri na bëri na bëri lay ko xam ne musam ko xam kon dana am kóolu jama ci isaar mooy azawja jaba mooy almara Mm. seetu gi bidan laka min ahli siqatin isaari mm. mu ne haada wa kam min afaninin muajibatin mm. anni wa min mulahin tulhi wa min nuxabi fa in fatintum li lahni alqawli baana lakum fiqi wa dallakum wa tane ala rutabi wa in sudi wa in sudihtum fa inna alaara fii hala man la yumayisu bayna alhadi wal xasabi haada mbir maa ngi wa kam min afaninin bari nay fànn mu àjjiba di ñu la koy héemuloo xam ni jógee ci man wa min mulahin ak ay wax yu xoromu te lu yee danañu soxlaal wa min nuxabin ak ay tànneef mu ne bari na ay fànni balaaxa yu xam ne baxoo na ci man bari ay nawaadir ak i taraayib yoo xam ne baxoo na ci man wa kam min afaanin bari na ay fànn mu àjjiba di ñu la koy héemuloo indi fi man wamin mu layin wax yu xorom tuli yooyu danañu soxlaal wamin nu xabin ak ay tànne fa yéen watentum bu ngeen xamee li laxnil xawli ci maanaam sama wax baax na kon biir la kum ñaaxal leen sil xii sama dëggal li ma wax su ngeen ko déggee da ngeen li ma ne gis naa wadal la kum te tegtal leen taleen sama pela ala rutabi ci sama mana te itam waxin la woo xam ne da ci xamee ne man hadis dëgg la science dëgg la itam wayu su dee tum bu gërëm loo fee leen nag ah su fekkee xamu leen li ma wax nag fa yit na laara gàcce fii ci loolu kon du ci man ci la de kon sikk si man war na koo xam ne layu ma yësu du mu jàqe baynal xoot ci diggante xoot xeetu bant la wal xasa xool lu ñu xool xool xool gantaal bi gàc eh, maanaam dégg nga xool mm. maanaam bant lay doon boo xam ne koy gàttoo xasab mm. amut gàtt mm. ba bokkul bu ci nekk bant la waaye bokkul xasab amut xeñ xool dafay am xeñ bu neex waye su dee tom bu gëlëm loo fee leen fay na xaara naka gàcce fii ci moom xalaa man war na koo xam ne la yu mayisu du mu jàqee beneen xool yi diggante xool wal xasab bi ak xasab di leen ko baax a baax alayya naxtul xawaafi min mahadiniha wa ma alayya isa lam tafhamil baqaru mu ne xam nga man lii sama wàlla mooy naa wéy mu rafet waaye ku ko xam ne comme nag la tam man da xam li may wax kooku du ci moom du man ci moom la waaw man sama waxee ba mu rafet ku ko mën a dégg doxatul ci moom man ci yow la hmm. ah yow yaa ñàkk dégg waaye man xas naa wax loo rafet waaw alayya naxtul xawaafi min maadiniha hmm. wa ma alayya ida lam tafham il baqaru loolu hmm. moo ci nekk rek moom moom mooy xelaat bi ne fa in sudeetum wa in loo feele fa in nal haara naka gàcce fii ci loolu ala man war na koo xam ne la yu du mu jàqee

qaala wax na alxaaris ibnu hammaam xaaris hmm. nee na fattakax naa ñu xaraf hmm. ndax bitu di dajitu mooy di làmbutu fii hmm. taqali bi xariti yi ci jàllar bi wéyam mu ne ñu nekk ci wéya nag di jàng-jàngaa naka settantal bi wa tawili maariti yi ak tawil ay maaridam xam nañ ne wéy wi ay maarid moo ci nekk temum yalho mu ngee fohe binaa ci ñun mm-hmm. la wal xali yi fee fet fohe al aji fee xel bi mm-hmm. so ji ci aji jàpp mm-hmm. mu ngee def loo xam ne dafa niru daal reetaan waaw ah, te gim ñu te daal mu ngee def loo xam ne dafa niru daal yee reetaan daal waaw te man yàlla mu ngi foxe benaa ci ñun la wal xali foxe ak aji fi xel bi ko ji ci aji jàq mm. mu ngi nekk ci mbir yoo xam ne mm. ñun taluñu ko daal te wane ne lii yéen lay seen muskila mm. wa yaqulu ma laysa bi sikki fadru ji ku wax rek loolu la wax laysa bi sikki ji demal waroo fee dal si du sa barab mu ne ku mu ne waxu la ko du loolu ilaan taxasura ba ilaan taxasara ba jafe alnitaaju ngirte wasta kama te hatte alistitaaju tëju ba fi ñu mujj ñun ñëpp mooy xam ne kii caxabe ñun muy ko ilaan taxasara ba jafe alnitaaju ngirte mooy wane luñ jublu ci caxabi wasta kama te hatte alistitaaju mel ni xol tëju na daal mm. faax li faax xëy naa ñu sànni mm. ilayhi jëm ci moom almaqaadata nos ka hemalu xomatukaay mm. ba mu xamee ba bañ xamee tëna ñu ñu ne ko ñun daal dëgg dëgg tëna ñu te nga yow lañ dee déglu waxatab naa ñu sàkku minu ci moom al ifaadata jëriñe eh, bëggoon na itam nga layee ñu ci biir mën nañ ko wax mm-hmm. fa alqaynaa ñu sànni ilayhi jëm ci moom almaqaadata not ka walla xomatukaay mm-hmm. waxatam naa ñu labat min wi jëm alifaadata jëriñ mm-hmm. fa waqafanaa mu taxaw looñu bayna mat maxe ci diggante xemem waliyaa fi ak naagu moom daal waxul déedéet bañ xam ne ba bañ bañ xam ne bay na wante it waxul waa win nag hmm. bañ ne ko loolu hmm. ay mën naa am yu mel noonu daal la wax rek hmm. waaye daal waxul ñu luñ xamee ne moom du ko def waxul ñu luñ xamee ne moom dogu ne waqafanaa mu taxaw loolu baynal mat maye ci diggante xemem waliyaasi ak naawu wa qaala mu ne al inaas qabla al qisas mooy bi ñu ko laajee loolu la wax al inaas wéttale qabla al ibsaas nekk na di njëkk wax bas bas bas baat la bu arab di wax gëlëm su koy taxawloo bëggu koy rat xam nga gëlëm bu fekkee dafa téye xenaat di dëgëral ko yow xamoo kattan na ñor di sooy bu mu génn mukk da ngaa jegeñal doom ji hmm. su yaakaar ne doom ji na mu yoxomal xenaat bi hmm. nga door a mën a ratte génne soow bi hmm. jegeñal doom ji nag muy ina mu ne gëlëm bala ngaa bas bas pour mu taxaw nga mën ko rab da ngaa jegeñal sa loo <laughs> sa loo al inaat wéttale ablal ibsaasi nekk na ci njëkk wax bas bas loolu mooy da ngeen def dara. Hmm. bala ma laaj dara. Hmm. loolu la bëgg a wax rek. Hmm. loolu a wax rek. faalim naa ñu xam ne. annahu naka man doon na koo xam ne. yar xabu dana mu xamee mi ci fay. ñu xamee ne kii li ñuy waxal affaire bi. dafa bëgg ñu fay ko ci weer tasi da dana sàkku ngeen hmm. ci lu ko mi jaa tem bi hmm. mel ni daal boo ko defal lu la neex hmm. li nga bëgg doo ko gàtt te bu affaire wasaa daal di naqali aba maswaana borom suñu saxuwaay bi mooy suñu njaati gi bi ñuy ganale ala day huwa abu kasa maanaam suu kasa di soo mis baaña abu nuur wasaa daal di naqadi hmm. aba maswaana borom suñu soxwaay bi mooy suñu njaatige bi hmm. an no arada bu gaara lefan ñu hmm. lil xurmi ci fay aw nu xayab wala soyaleen ñu bir ruux mi ci toroxaande ci forte suñu njaatige maanaam bëggut ñun suñ dara takk te bëggut ñun ñu ñàkk fi dara waaw bëggu daal ñun ñu fere fi dara te bëggu dara luñ dara tax luñ bëgg nañ ko fi am waa hmm. dara dal di teewal saahibul manzili borom kër gi hmm. naaqatan gëlëm hee di yatan bay ko ñu xeet hmm. mu indi gëlëm gu baax a baax a baax wullatan ak kodday saxee di yatan bay ko ñu saxee ak kodday lu baax a baax mu ko askan ci saxee ibnul haas wa qaala mu wax wa ñaal ko mu ne ko xul mm. la buñ ko waxee fokk si ay morso lay doon mm. ay morso lay doon mm. duñ la benn morso rek complet la ay fokk si ay morso lay doon wa qaala mu ne ko kusuma jàppaleen xalaalan ñuy lu lew mu ne ko jël ko yaa ko moom de wala tarsa bal wàññi nag adiya fi samay gan sibaalan kem sibaal mm. mooy kem li koron rek de jiital mm. yaakaar naa mooy sibaal xaaral ma seet ko ci tafsirul mun xamaat mooy lu mu tuuti tuuti daal. Mm. boo ko fi laaj sama genn gàtt. Mm. te nag boo lu mu tuuti tuuti daal. Mm. boo ko fi jël sama genn gàtt. xusuma jàpp leen ñoom ñaar ñaari kodday kodday li dee gëlëm gi. jël leen xalaalan muy lu la lew doom. wala tarta te bul wàññi adiya bi samay gan sibaal ak kem sibaal. mooy li ma leen di def buy dem deroon. kem loolu boo ko jël ci sama gàtt. fa qaala abu saydin ne ko ashadu maa wala maa ngi géej mm. ne annaha lii daal mm. silsilatun jikko la mm. axsamiyatun bay ko jug axsam axsam yaakaar naa maam la ci haati musta yi mooy jikko juñ fekk baax la waari waari yaxiyatun te deg tap haatimiyatun gare ko jug haati musta yi xaatimu taayi kenn la ci sangi arab yi hmm. moom nag moom nag jege hante nag yonent bi jamono hmm. di ci dundam la yonent bi juddu hmm. waaye xooteeg nubuwa fekk ko nag moo jur nag sahaaba yi boobu ñu Adi ibnu Hatim wa Abdul Muttalib ñoo bokk xar bu ñu génn àddina Mbàkke mu tayyi mm. boo yonent bi mu ngi toll juróom-ñetti atam mm. dafa nekkoon sang bu tabe woon mm. mën a joxe lool lool lool moo doon wax jaamam bi naan ay awqit fa inna layla laylun qarru wa riihu fiha baradun wa sirru awqit yara naara kama yamurru in jalaba dayfan fa anta furru moo ko doon wax guddi gu sedd la tey ngelaw mm. mu loj ay gëléemam mm. wax jàmm ne ko taxalal ba mu yanji mm. nga lakk ba mu ñor su fi gan reeree rek ma ba goreel la su fi gan reeree rek ma goreel la xam nga tabe na bu weesu am waaw yonent bi nag jamono bi muy woote benn bis ñu ngi waxtaanee ku ko laaj ne ko ndax lam daan def noonu te boo duggagut ci lislaam dara ñaam tiyaabo mu ne saaka araada amran fa adraka mm. loolu la wax de mm. saaka araada amran fa adraka mm. léegi daal am na lu mu bëggoon am na ñenn ñi dañoo gis li mu doon def yàlla taxu doon ndax gëm yàlla bu koy yóbbu ci def ngir yàlla amu doon waaye na ko nit ñi de tagg la bëggoon rek nit ñaa ngi ko doon kon lii duñ ko ci yaakaaral te yàlla mm. xam nañu firi hadis bi noonu mm. waaye ne yonente bi waxut kenn nag mm. ne xaatimu tayi du am te yàlla ndax doone saaga araada am ran faak rek abru bi ne yaa xam loo koy déggee dafa am lu mu bëggoon daal doo xam ne ko lay loolu loolu la waxoon ci moom ay ko am tudd rafet la nag mooy lii la ko waa ji wax Mm. mu li la li lañ ko jox mu wax ni mu ne lii lii luñ fekk baax na luñ mm. mu dëgër su ma naa topp mu jàkkaarloo ak ñun mm. bi wàññeen ci xar kanam bu xam ne bisruhoo mbégteem tàllim sippu dana mu yokk wa nudratuhoo taaram mooy leeram tarifu dana mu mel xar mu daal dañu xool ak seen may lu firee ko firee ko lool kontaan lool bañ yaakaar ne wax leen moo ci def hmm. wa qaala mu wax ne mu ne yaa xam yéen samay bopp hmm. inna layla naka guddi gi xadij hmm. la wada gaaw na wa nuhaasa naka gëmmentu xadij ta wada not na mu ne fi mu nii guddi gi dafa sori kenn ku nekk waxtu wi ci nelaw la daan fekk ba tax yëpp yëg maanaam jëmm yëpp yëg nañ soxla nelaw mm. kenn ku ne gëmmeentu na ne mm. man gëmmeentu naa mm. toog de waxal nit li xawatuma koy man yéen gëmmeentu ngeen toog de déglu ku waxal li xawu leen koy man kon foofu sax wax na ngeen wéeru ilal maraqidi jëm ci yàndoor waaye mooy lal yi waxtani moo te ngeen manga raxata raqidi nof layab aji nelaw gannaaw li leen fi joxe ay ñam noonu lañ leen pareele ay fanaanuwaay yu baax hmm. nañ dem ci lal yi hmm. nelaw ba jëmm yi noppalu hmm. xam lu ñu lay li tasara boo ngeen na ngeen naan nasaatan cawartande suba tayal ngi jëmm yi yëg nii mën a tegeeku gannaaw cawartande wutumaasoo ak na buurloo fët leen ni soatan ngeen di wéy sawar suba bu ngeen jógee am kàttan Fattama ngeen a mokkal. Hmm. E, maa li nga xam ne fa naa ko biri. suba hmm. su ma biree jami da ngeen ko mën a mokkal. Hmm. waaye tasahal ka yomb. lëkkum ñaale al mutaasir aji jafe. waaye itam da leen jafe ni dana leen yomb. ndax ni mu leen tëyee nii naa am xol yu sonn. ci la bokk. jub dal di sawa. mooy dal di muy jub. ku képp maa li nga xam la ah mu gis kenn ku ne wax nga dëgg de. waaye xam-xam li laa jëriñ. buñ gàggee rek nga gàggal lii xelaa di xam buñ joon waaye nii la waay ñee loolu lañ wax wa tawasada mu gaganaaya wisaadata karaawu gaganaayal gëmeentum kenn ku ne ne wax nga dëgg dem te dangay commencé ne la falamma wasanat ba gëmmeentoo alaj faanu mbati bari waax fa te nelaw addi faanu gan ñi ba nga xamee nit ñëpp nelaw nañ wasaba buur na ila naasati jëm ci gërëm ngay ko jox hmm. faraxalaha mu laxasal ko mu defal ko teg su martaxalaha topp mu laxasal ko mooy mu defal ko teg wara xalaha soreewul daal baale soreewul hmm. wa xaala mu wax mu xaatiban daa ji waxante laa ñaar gërëm gi hmm. mu tàmbali di wax ak gi de dàq dem an ko sorooji yaa naaqu fasiri wa xiidi wa adliji wa awibi wa afidi حتى تتا خبراك منع الندي فتنامي هنا إذن وتنعدي فمهاك mu ne sarooju sarooj yaa naa ko yow gëlëm gi sarooj lañ jëm fasiri doxal waxi di te nga hmm. doxal bum doxal na hmm. waa li ji te nga it laaj mooy e dox guddi hmm. waawi bi te nga téppirlu mooy e dox bëccëg tawiib waas it yi da nga def is aat mooy boole guddeeg bëccëg de dox mm. nañ dem rek bu àggee noppalu xamul xendal xamul fanaan mm. nañ dem a dem rek xataa mm. tata ba dëgg xuppaa ci sa ñaari sang yi mooy sa ñaari tànk yi manaa sàmm waayam ba di bu daa ji naat bu daa ji tooy ba nga àgg ci sàmm waaye sorooje fa naataango ja fa ndox waxtaan amee da nga xawu. Mm-hmm. xëy na indil ca boobale. Mm-hmm. waxtaan it da nga texe. suba mm-hmm. da nga dund bi kulli noxomatin. wa kulli saadatin. te da nga wóolu. an tudhimi ba nga jublu ha taxaama te boo xaagee dañ la wàcce. yow la dala yafal rek. la dem taxaama. dootu xam de. watun jidi wala eh, nga jublu naja. wala war la dem nañ. dootu xam de. fiihim dolli yokkal xel hmm. fadal ki yàlla nekk di sa njot andooku gélém yi hmm. jiddi fallul wajha di te nga góorgóorlu hmm. wafri te na nga dagg adima fat fadin derab xàll fa fat adi fa fat fadin topp derab xàll léegi dama rek forom rek teg ca fa ca war a topp bu yàggee nga romb foofa tegaat ca fa ca war a topp boo rombee li nga war a lépp li nga war a romb lépp rek ak fu nga jëm wa fii na nga dagg adima fat fadin derab hàll fa hmm. fat fadin topp hàll hmm. waxta ne ayate na nga doyloo bi nafsi ci naan lu tuuti indal hmm. mawri di farootuwaay naan lu lay fem loo loo jëlu def naana tuuti rek wala ta wutti te bul sippi doona saakal maqsidi walit boobale jubluwaay bal xelaat teggi bagaas wala teggi teg te xagguñ foofa de fa xar xalaftu giñ naa Mm. hal fatal mujtahidi ngiñul aji fallu mm. maa ngi giñ bi hurmatil bayti mm. ci hormay néeg bi te mooy kaaba gi arrafi'il umri bu daa jékkate ko ci kenn ne innaki yow wala innaka yow innaki yow in ahlalti nii soo ma wàccee fii baladi ci sama dëkk halalti nga wàcc min nii ci man bi ma hallin baladi wàcce wayo doom soo ma yóbboo sa roy ni ma def wayi laa dégg xaala xaaris ne faalim du ma xam ne ànd hoo mu asoro ji boo laa xam ne ah waa ji la rek alladi ki nga xam ne isaa baa bu jaayee rek mm. im baa mu buur mm. ki nga xam saa soo amee la mbëgg rek toogatu mm. wayi saa malaa bu feesalee a saa saa in saa mu wëññeeku faajoom fajoom pare na fa te am na ndimbal wala mam balaja ba fenkee wala baqare. sabaahul hmm. yawmi suba si ëllëg hmm. suba si bis ba. Hmm. te xeexu annu waamu wéy nelaw yi. mena naw ci nelaw. ba bësatee ba gaañi xeexu. alam tuhum booba la ne. am na soyaxa naka góor gi nag. ina axsaahu waxtu wala dikkalee ñoom. ak nelaw nelaw yu diis mooy subaat wa jaal naa namakum subaata. tallaqaw fase na leen mm. albatata faseen batta mm. wara ke ba te mu war naaqatawa gélémam wa baata mm. mu rëcc leen mu raw leen may leen góor gi daal ba mu leen naxee ba ngeen nekk seen digg nelaw booba leen jàmm jël na bagaasam teg ko ne ci teg na ko ci gélémam war na dem dina ñun ñëpp rëcc nañ faa xadamum jàppaleen maa lu xam ne xaduma yàgg na wa maa ak lu xam ne xadusa sosu na mu ne mu nekk tiis nag ci ñoom lu màgg a a diis a wana soo ñi fàtte maa xam ne taaba teyoon na minu ko ci moom bi maa ci li nga xam ne xabusa bon na xor gim leen xor ak yàq gim yàq seen yaakaar tax na duñ ci xeb xam-xam ba daal xeb nañ ci jikko ya wana doo ñi fàtte maa li nga ne taaba tey na min wu jëmam mm. ko maa ci li nga xam ne na mm. su man so am naa topp ñu tasaaroo mm. fi kulli mahabin ci bépp yoon wa dahab naa ñu dem taxta kulli kawkabin ci ron bépp bidiw booba na lañ tasaaroo kenn ku nekk rek mu jaari waaw man so am naa topp ñu fi kulli maqamin ci bépp suuf waaye mooy bépp yoon mm. wa zahab naa ñu dem mm. taxta kulli kawkabin ci roon bépp bidiw